aleykum wa rahmatullah asalaamualeykum mbokk internet yi téléspectateurs yi safoo la TMS TV mbégte la am ak kontante di ñëwaat ci seen émission boobu ngeen xam ne nii da ngeen ko sopp tànnal ko seen bopp ndax njëriñ li am muy émission leerlu leerlu nag ah buñ ko waxee rek mooy li may faral di wax mooy ki nga xam ne ni moom mooy leeral ah te lu mu wax ci alxuraan la ko teg ci addis la ko teg muy kan oustaz kër Dieye gannaaw bu ñu jëlee nuyoo bi yóbbante ko alaaji Thierno Moulay Sow le PDG de la TMS TV fële mu nekk ci France oustaz nga nuyu ak téléspectateur te nag namoon nañ la de oustaz. <laughs> Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah doyen Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu mbooleem kilifa yi diine yi ak kilifa aada yi ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy seetaan TMS TV di jiital ci nuyoo bi sunu PDG alxaaji mu la Sow di ko ñaanal yàlla. yàlla na ko yàlla defal jàmm ba delloosi ko ci jàmm. oustaz oustaz nag namoon nañ la. ne maa leen raw <laughs> maa leen raw. may wax ne nag oustaz bi ànd ak jamono la parce que sànq war na ma ay foto yoo xam ne nii day tàggat yaram day sport de xam naa ne loolu moom dinañ ci ñëwaat. parce que ah. nag euh, am oustaz boo xam day tàggat yaram te tàggat yaram ni mu baaxee. Mm. Ah, vraiment loolu defe naa ne dinañ ci def émission ah, spéciale. loolu loolu farata la. farata la de ah. mooy yonent bi salaay salaam. Mhm. daf ko daan daf ko daan euh, dénk ñoom seen Omar ak saxaaba yi. dëgg la leen bu ginnaaw tàkkusaanee dee leen tàggatu ca bayaal bee te cay tàggat seen njaboot. Mhm. waaw mais mais oustaz euh, benn question rek après ñu jàll ci sujet bi oustaz tàggat yaram yow ban moo ci gën a neex. football. football moo la gën a neex. Mm. ban poste. man. Mm. <laughs> man attaquant. cëm. <laughs> oustaz attaquant la man vraiment sama nattu Benzema la. ah Karim Benzema moom macha allah. mooy sa jour dama ko bëgg daal waaw. voilà très ci ñëwaat voilà donc loolu introduction loon oustaz euh, ñu ngi séentu gan gan gu mag gan gu ànd ak njëriñ ak ndax ngëneel yi mu ëmb. muy weeru weeru koor ah oustaz defe naa ne liñ naan. ay weer ci des buñ toogee ba ñu ne ay semaine toog ba ñu ne ay fan defe naa ne yegsi na te jullit bu nekk war nga ko waajal ndax weer boo xam ne ni benn yoon lay ñëw ci at mi li naan weeru promotion la euh, oustaz bu ñu tollee ci ci période bi jullit nan la war a waajalee weeru koor waaw jërëjëf doyen Abdal Aziz bu ñu tollee ci période bi wax dëgg yàlla euh, weeru koor moom daaw lañu ko annoncé woon parce que kenn ku ne ba nga woree ba pare julli ji ba ñëw ba nga ne jàbb sa loxo morom da nga ni ko déwénati mën la fekkeel déwén dëgg déwénati googu lu muy tekki mooy nanu waajal weeru koor déwén ak jàmm yàlla ñu ko yàlla may ñu bokk ko fekke lool loolu la ñaanoon daaw waaw mu mel ni xam nga koor moom mhm. gis nga lislaam dafa am ay pilier mhm. ay ponk mhm. ponk yi juróom juróom la yoo xam ne ku ci doya dal benn rek xamal ni amoo amoo amu amoo yeneen yi. ah hmm. mhm. jàpp waaw mooy les cinq piliers de l'islam. voilà mooy ponk yi. Mhm. maanaam parce que euh, juróomi ponk yooyu ñoo téye l'islam. Mhm. benn boo ci rocc rek xamal ni yaa màbb xamal ni màbb nga lislaam te itam ya boo roccee benn doye dal ko di def yee ca des kenn du la nangul. boo roy boo dee def ñeenti yëpp te defoo benn kenn du la nangul boo dee def benn te defoo yi ci des kenn du la nangul xam nga gannaaw ñaari baatu seede yi yàlla dafa wax ni euh, wa aqimu salaata wa atu zakata wa sawmu ramadan wa xajjul bayti man istata man istataa ilayhi sabila yàlla dani juróomi ponk yi mooy lislaam ginnaaw ñaari baatu seede yi taxawal julli woor weeru koor joxe azaka dem màkka ci ku ko mën nga def ko benn yoon mm-hmm. ñun nag daanaka danoo euh, toll ci diine foo xam ni dañuy jël li nu arrangé li nu neex ñu def li nu arrangé wul ñu teg fee dunu nu sax jéem te weeru koor nag weer la woo xam ni weer wu bëri yërmande la mhm. ndax yonent bi salaay salaam daf daan wax ni chahru rajab chahrullah wa chaabaan chahri wa ramadaan chahru ummati nee na rajab mooy weeru rajab wa nee na bu weeru yàlla la yàllaa ko féete woo mhm. nee na chaabaan muy weeru baraxlu mhm. nee na sama weer la man sallallahu alayhi wa mhm. waaye nee na ramadaan nag muy weeru koor mooy sama weeru xeet ngir yërmande gi nga xam ni moo ci nekk mhm. ndax chehru ramadaan ñetti fukk moo ci nekk wala ñett ñett moo ko composé ndax néew na fu weeru koor di doonee fan weeri fan néew na parce que yonentu bi salaay salaam moo wax loolu nee na achehru tisa wa ashrina ayaam nee na weer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la. 29 mm-hmm. jours salaay salaam moo ko wax. Mm-hmm. parce que bi mu koy bi mu koy misaal saxaaba yi dafa def nii fukki baaraam yi nii. Mm-hmm. defaat fukk def juróom-ñeent muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent. voilà kon nag ñett moo ko composé moom moom weeru koor muy awwaluha rahma wa awsatuha maghfira wa axiruha atqun min an naar eh, li ci njëkk muy fukki fan yu njëkk yi yërmande la mhm. li ci digg bi mhm. njéggal la mhm. mujj gi jot sa bopp ci safara la kon nag jullit bu nekk bu weeru koor di ñëw war nga tàggat sa bopp war ngaa tàggat sa bopp. waajal entraîner sa bopp. voilà <laughs> war ngaa entraîner sa bopp tàggat sa bopp. Mhm. waajal xam ni weer weer a ngi ñëw woo xam ni euh, ngëneel yi ci nekk bu la rëccee déwénati rek. dëgg la te kenn sa fekke déwén wóoru la. waaw ya yàlla na ñëpp fekke déwén. mais fekke déwén fekke déwén kenn wóorul kenn. dëgg la léegi nag kon comme comme nag ngëneel yi nga xam ne daf ci ne. Mhm. nga xam ni lépp tuyaaba weeru koor lépp tuyaaba xam nga yonent bi salaay salaam bu demee ba wax ni nawmu saa'im ibaada wa sumtuhu tasbix yonent bi salaay salaam nee na nelawi aji woor sax dañ koy bindal kuy jaamu yàlla maanaam ki woor tëdd waxuma nag waxuma xëdd tëdd yeewu ndogu yi <laughs> am na ñoo xam ne dañuy xëdd tëdd yeewu ndogu xëdd tëdd yeewu ndogu. non yooyu moom dañ ci ñëw ñoom du ñu yëg sax koor dafa am. moom dañ ci ñëw oustaz. nee na nee na ci waajal bi. voilà ñu ngi ñu ngi ci waajal bi voilà. nelawi aji woor yonent bi salaay salaam nee na nee na nee na nee na nee na boo dee tëddee nelaw sax da lay bindal yoolu kuy jaamu yàlla. dañ lay bindal yoolu kuy julli di saraxe di def mbooleem jaamu yàlla yi ba keroog nga yeewu boo noppee dañ lay bindal yoolu koy sàbbal yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na balance nit ki ëllëg yowmal qiyaam li koy diisal mooy sàbbaal yàlla subhaanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar kon nag wax dëgg yàlla jullit yépp ñu takku bàyyi bu weeru koor bi jege see kenn ku ne di yeesa feebar waaw am na ñoo yi waaw ñi naan dama am ulcère ñi naan sama estomac bi moo nanguwul xiif ñi naan dëgg-dëgg man moom da gis nga loolu yëpp yàlla paase wu ko yab yàlla paasewul yàlla ni la wooral nga naan man moom wax dëgg yàlla dama mënul te amoo benn feebar ñàkk yar sa bopp la ak ñàkk a yar sa bakkan kon nag jullit yi nanu góor góorgóorlu rek doon xam ni weer la woo. xam mais mais oustaz ci waajal bi est-ce que dafa am maanaam am na ay farata ñu war def wala lan daal maanaam nuñ koy waajalee oustaz est-ce que dafa am lu particulier lu ñu war a def. no lu particulier lu ñu war a def. Hmm. moom amu ci. Hmm. déedéet lu particulier lu ñu war a def. Hmm. moom amu ci. xanaa fas yéene rek xam ne weeru koor a ngi ñëw mhm. ñu fas yéene ko woor loolu rek moo ci ne mais amul dara lu particulier loo xam ni lu concerné koor gi la ñu war koo def avant koor mhm. amul mhm. Euh, ñu ñëw nag maintenant ci li nga xam ne nii vraiment dafay daan nekk benn pomme de discorde maanaam euh, weer wi ñii dañ ne bon boo ko gisee ñii ne bu ko ay jullit yu maandu mais jullit sax moom dafa war a maanu bu ko gisee kañ la nit ki war a um koor oustaz. bu gisee weer wi. Hmm. bu fekkee ne condition asamaan si permettre mu gis ko nag. mu matal fan weeri fanu Sha'ban ndax yonent bi salaay salaam nee na suumu li ru'yatihi hmm. waftiru li ru'yatihi wa in ghamma aleykum fa atimu iddata Sha'ban mais des na benn de parce que wax nga ñaar. Hmm. nee nga. mu gis ko. waaw ah. way laa bu ko gis mu matal. bu fekkee ne dafa jot information ndax information rek war na ci mun a basé pour um koor waaw information da nga ciy basé bu fekkee ni jama jama jamaa mu fiida ñoo ko génne maanaam ay euh, par exemple ñetti jullit ñetti ñetti jullit ñoo xam ne seen jullit wér na te itam ñu maandu lanu ñooñu buñ la waxee ne la gis na nu weer wi bërëb sàngam kooku dangay ngay ci ñoom nga woor waaw mais oustaz am na loo xam ne nag moom dañ koy dund. Hmm. maanaam ah man kat diw sàngam sama dëkkaale sàngam xam naa ne julli la gis na weer wi. Hmm. wax na ma ko. Hmm. waaye nag comme que dafa am ci sëriñ bu ma jokku. moom gisul weer wi man damay xaar moom mu jox ma digal loolu dañ ko fii gis est-ce que loolu wér na wala wérul. non loolu moom ay caaxaan la ndax itam nit eh, am na loo xam ne santaane yàlla moom kenn du ci déglu kenn. sëriñ bi ci li nga koy dégloo mooy xëy na mu woote ay toolam wala mu woote ziyaaram wala mu woote gàmmam wala mu woote yu mel noonu mhm. mais santaane yàlla moom kenn du ci déglu kenn mhm. ki taalibe du ci déglu sëriñ sëriñ du ci déglu taalibe mhm. mi ngi mel ni bu ñu nee hayya ala salaa rek ca jàkka ja taalibe bu werte toog naan damay xaar ba sëñ bi dem julli ji ma soo ko julli noonu rek noonu rek la koor mel koor amul dara amul kenn kuy déglu kenn pour mu woorloo la parce que yàlla ci boppam moo ni yaa ayyuha alladina amanu kutiba aleykum siyaam yéen ñi nga xam ne yéen a gëm man mhm. yàlla farataal naa ci yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum comme ni ma ko farataale woon ci ñi nga xam ne ñoo weesu laallakum tattaquuna ndax amaana ngeen am ca garaatub ragal yàlla mhm. comme nag yàlla bu ne yaa ayyuha alladina amanu man ak sama sëriñ bi ma yaakaar ñoo yem ca kanamu yàlla. parce parce que yàlla nee na koor maa koy fayal son jaam rek lañu lañ lañ lañ doon ca kanamu yàlla gis nga ab sëriñ. ab sëriñ li muy jariñ mooy wobu ittaqullaaha wabtagu ilayhil wasila ab sëriñ li muy jëriñ mooy xemmeem loola sa borom mooy fexe ba nga joti ci sa borom. ab mhm. sëriñ loolu lay jariñ léegi sëriñ bi bu fexee ba nga joti ci sa borom taxaw ci ay ndigalu yàlla. moytu ay tere yàlla sëriñ bi bu fexee ba loolu am rek mhm. sëriñ bi euh, yàlla danaan ko xalli bay nii waa bay naa na di génnal sama diggante ak sama jaam bi waaw moo tax ab sëriñ li muy fexe rek mooy nga nga nga nga nga nangul yàlla ndigalam yi mhm. moytul yàlla tereem yi li la yàlla sant nga taxaw ci mais nag ab sëriñ nga koy déglu pour woor di ko déglu pour wari mhm. loolu tegewul fenn ndax yaag sëriñ bi yéen a yem même pied d'égalité ci kanamu yàlla ay jaami yàlla ngeen mhm. Mhm. Euh, oustaz xam naa ne ñun dinañ ñëwaat ci koor mais nit ñi dañuy faral euh, maanaam bu koor jotee c'est vrai euh, ñuy yokk parce que dañuy weeru promotion la yokk naa fi yi yokk liñ daan def ci lu baax yëpp ñu yokk ko mais oustaz nit ñi dafa mel ni bu weeru koor jeexee rek dañ naan def lu baax jeex na jaamu yàlla topp yàlla jeex na ñu nekkaat ca lañ nekkoon ndax jullit war na am boobu taxawaay. loolu mooy jëf ju nanguwul waaw jëf bu nangoo borom borom borom du ko borom du ko bàyyi bu la yàlla nangulee sa jëf rek doo ko bàyyi. gis nga jaamu yàlla du weeru koor kase. jaamu yàlla du weeru koor kase yàlla ni la sante suba tisbaar tàkkusaan santimis gee muy sa farata. ci lu dul weeru koor noonu la doonee sa farata ci weeru koor mm-hmm. ni mu doonee sa farata ci weeru koor nan la doonee sa farata ci lu ci lu ci lu dul ci lu dul weeru koor mm-hmm. jaamu yàlla nag boo koy def doo taamu weeru koor weer wee donte weeru koor nag moom dañuy ful sa sa jaamu yàlla dëgg la wa uh, weeru koor dañuy ful sa ay jaamu yàlla maanaam boo jaamoo yàlla ci chaban bii dina am doole de mais boo jaamoo yàlla ci weeru koor gi lay ëpp doole mais nag nit ñi bu weeru koor ñëwee ni ngay sellalee te sell di jàpp ba sell di dem ca jàkka ja julli ji dem ca jàkka ja naafila ji ak yu mel noonu ah yooyu yëpp liy wane ne sa koor nangu na te sell na bu jeexee bu koor gi jeexee da koy continuer waaw ah, mais mais mais fukki fan am na ñoo xam ne fukki fan yu mujj yi rek ca lañ koy dagg dootuñu dem ñaar fukki fan yi bu paasee mm-hmm. wala fukki fan ak nangam yi bu paasee am na ñoo xam ne dootuñu dem. dëgg la dootuñu dootuñu sax respecté julli ah. <laughs> dëgg la doo dootuñu dem oustaz fi ñuy daanale mooy question d' actualité boo xam dafa dugg ci weeru koor yi muy euh, muy euh, dégg nañ ci actualité politique bi dialogue bi amoon fan yi euh, président de la République son excellence Macky Sall ne maanaam gàllankoor yi am ci organiser élection yi ci weeru koor yi démb maa ngi def plateau wax ne. weeru koor day wax dëgg yàlla warul mun a doon gàllankoor pour ñu organiser élection parce que euh, mu ngi mel ni rek weeru koor mel ni nit ñi duñu ci liggéey mel ni nit ñi duñ ci def yenn activités yi mais oustaz euh, fi may fi ma lay interpeller rek mooy euh, suñu caméraman bi jibi démb def ne waaw xam nga di woor maanaam war a wote ji nga war a dem Fuuta wala ku war a jógee Fuuta ñëw fii ñëw ñëw ñëw ñëw Ndakaaru mais oustaz léegi li ma doon wax mooy Euh, bu fekkee ne ni nit ki dafa war a tukki tukki farata tukki farata ci weeru koor ñaata kilomètre ñaata kilomètre lañ ko may mu bañ a woor. 70. 70 kilomètres loolu fii ak Thiès la. an kaana maridan aw ala safarin. Mhm. aw ala safarin. Mhm. fa iddatun min la képp koo xam ne yaa ngi yaa ngi ci tukki. Mm. Euh, dañu lay dañu lay may nga dog. bis yee ngay tukki. Mhm. ba korite ba ba nu wari. nga fay ko soixante-dix ñëw fii da ngay woor. ah waaw parce que parce que parce que xam naa diggante fii ak Thiès. Mm. melul comme diggante fii ak ci année année année quatre-vingt nangam ya. waaw mm. ah, diggante fii ak léegi daanaka trente minutes. trente minutes waaw mais distance bi ne wala de voyage yi aussi. foog ñu xam nga xam nga yàlla moom ba muy wax. Mm. xamoon na ni yii yëpp day am. yàlla hmm. ba muy wax xamoon na ni yii yëpp day am hmm? xamoon na ni ay autoroute à péage ak <laughs> xam nga condition de voyage yi nga xam day ame wu voyage day yomb léegi hmm. yàlla xamoon na lépp ndax mooy aalimul xëy bi moo xam li nga xam ne moo fàddu mais teewul la muy xam-xam loolu néewul bu jamono demee nii nag ngeen def nii waaw <coughs> daa maye woon la muy mayee rek te yonent mi nag salaay salaam nee na nga jël li la yàlla may moo gën nga bàyyi ko fa di di di ni ni ni da ngay ni da ngay def. da ngay ah, matal mais oustaz man bu may waree dem Kaolack. damay ah. joxe exemple ci weeru koor. Hmm. te mu wóor ma ne man mën naa supporter voyage bi mais dem du ma dog suma koor. waaw loolu mooy wa in tasuumu xayrun lakum hmm. yàlla nee na. Hmm. bu fekkee ni man man ngeen koo supporter kay ngeen woor yàlla nee na moo gën. bien loolu laa bëggoon de. boo leen ko mënee supporter wa in tasuumu bu fekkee man ngeen a woor boole ko ak voyage bi. xayrun lakum. yàlla nee na moo gën. bu fekkee da ngeen a feebar mën ngeen a woor booleeg feebar bi yàlla nee na ba tey moo gën. dëgg la waaw mais boo leen ko mënul yàlla nee na am ngeen sañ-sañu dog. Mhm. waaw loolu la. Mhm. Mhm. waaw léegi nag euh, xam naa ne si tàggatoo bi mooy comme ni ma ubbee émission bi rek tàggat yaram ku ko fonk nga te xam naa ne TMS dinañ dem cees dem xool oustaz muy tàggat yaram <laughs> comme parce que nee nga tàggat yaram yëpp. football moo la ci gënal. football nee nga yow attaquant nga. kan mooy sa référence mooy Karim Benzema ah mais pourquoi oustaz nga taamu Karim Benzema loolu la ñuy tëjee émission bi. xam nga cofeel moom. cofeel ay ay Sadio Mané yooyu nag. oustaz non non vraiment wax dëgg yàlla man. ah oustaz Sadio Mané nag <laughs> xaw ma Sadio Sadio Mané xaw ma euh, euh, ni ko ndaw soo woowee ni kii di kii. Sané Maajo Sané Maajo <laughs> naka doo sa oto oustaz. <coughs> non xam nga. yooyu mhm. moom daanaka. Mhm. moom la yàlla la yàlla xam doy na. moom daal moom nga moom daal mooy sa référence. waaw moom moom xam nga cofeel daal yàlla moo koy. dëgg la yàlla moo koy def ci nit. moo koy def ci ay doomu aadama. dégg la loolu la daal. daccord bu ko defee tamit euh, doyen. Mhm. wax nga sànq lu am solo mooy nit ñi nañ ci bàyyi xel. mooy xam nga euh, wa amrum shura baynakum yàlla nee na wa amruhum shura baynakum na mm-hmm. nee na seen seeni mbir de leen ko waxtaani seen biir wax nga ko sànq président réew mi woote na waxtaan mm-hmm. yaa xay nag ñi demul woon ca waxtaan wa ña demoon ca waxtaan wa lanu tënk ñi demul woon ca waxtaan wa lanu ànd ci loolu parce que bañ ne kaay leen indi seen xalaat ñoo lànk ni demuñu yóbbu suñu xalaat waaw mais ñoom tamit ñàkk ñëw bi am na fóoru parce que conseil bi nga xam ne nii moom moo yor lépp moo nekk tiim réew mi ñëpp war cee tënku conseil constitutionnel moo wax ne fukk ak juróom-ñeent yi ñoom ñoo war a dem élection donc ñoom itam ñu jàpp ne suñ dee waxtaan waxtaanu dat waxtaanu dat ñoom ñoo war ñoom lañ war a woo waaye waruñ woo leneen loo xam ne ni bokkuñ ci ñoom foofu loolu tax ñëwuñu de ñoom mais kon c'est normal c'est normal kon bu nu bu nu wootee bu nu wootee kenn ku ne ñu jaar sa tur maanaam yéen ñi nga xam ni ñoo séq réew mi yéen ñi nga xam ni ñoo séq réew mi moo xam yéen ñi nga xam ni da ngeen di laaj réew mi ak yéen ñi nga xam ni euh, jàmmi réew mi da leen a soxal kaay leen ñu waxtaane réew mi ku ci génn loolu léegi loolu ku ci génn yéen ñi jàmmi réew mi soxal yéen ñi doxali nga mel ni APR nga non demeewul noonu de xam nga doyen <laughs> xam nga doyen réew mi moo réew mi oustaz yow dinañ def yow naa def ak émission politique. xam nga yow xam nga. non émission politique ko def oustaz. <laughs> xam nga yow xam nga yow par exemple. Ah. xam nga yow par exemple boo amee sa idée. waaw man ma am sama idée. waaw mais nan nanu nanu toog waxtaan. su fekkee ni sama idée moo convaincre. nga mm. fekk si ma. bu dee sa idée moo convaincre ma fekk si la. Mm. waaye nag du ma dem. doo dem te ba yii doon a dem loolu amul loolu loolu tegewut fenn maanaam ñi demul woon daal ah. nan tënku ci dañ naan ko wax ñi demoon ñi demoon bés boo leen déggee oustaz ñu ne nekk na maire de Thiès bu bett kenn na ko wax feeñ oustaz looy tàggatoo <laughs> xanaa di sant ñëpp di gërëm di mm-hmm. ñaanal yàlla di nuyu sama waa ji DG waaw eh, Makhtar Diaw di ko nuyu bu baax di ko mm-hmm. ziar di nuyu Abdoulahi nee naa ko buñ la waxatee noo tudd neel Abdullahi bàyyil di wax laay waaw buñ nee la noo tudd nga ni laay day mel ni da nga ni man yàlla laa tudd mm-hmm. te yàlla kenn du ko tudd da nga naan jaamu yàlla laa tudd mm-hmm. yow mii tuddoo Aziz Abdul Aziz nga tudd samp Abdul Aziz la ma doon ku lay wax Aziz kay tooñ na la mm-hmm. ndax Aziz mooy mooy mooy yàlla ah bu ñu wax yàlla ñoom tamit nañ ma dimbale waaye ah waaye nan lay wax Abdul Aziz nañ wax jaamu yàlla <laughs> waaw <laughs> jaamu jaamu jaamu jaamu buur bu tedd bi waaw al Aziz mooy ku tedd Ah, tabaarakallaahu di nuyu Jibril nga xam ni turandoom moo daan indil yonent bi ay ay ay kii ay ay ay ay message macha allah di di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal jàmm yàlla defal ñu sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf oustaz euh, oustaz Babacar Dieye ci xam-xam bi ci xel mu rafet mi ak ci yiween gi tamit euh, di di gërëm ñëpp euh, di di di wax rek aussi di profiter ci occasion bi Euh, di nuyu le le tiktoker. Hmm. le de communication du marabout. Hmm. Matar Diaw mu ngi suivre émission Matar ana marabout. waaw waaw non après nañ defa moom plateau. mu wax ñu ah, mu wax ñu sëriñ bi kañ lay ñëw. parce que léegi sëriñ bi yaa ngi nii di ñu xool kañ ngay ñibbisi. voilà donc loolu leer moom da moom du ñëw. kan ci moom sëñ bi. waaw nañ ko laaj kañ ñëw laaj nañ ko ko sëñ bi koor gi ñëw na. waaw koor gi ñëw na. ñëwal waaw ok. kon nag <laughs> gars yi bàyyi bàyyi ñu ngi joxe rendez-vous téléspectateurs yi ci beneen émission lu jërë ngeen jëf.